ne fu jub jubal ak jubanti ci yorinu réew mi loolu waral ñu fal président de la république ci premier tour élection bi ñu amaloon boobu élection am ci jamono joo xam ne ak ak yelleefu doomu aadama ci Sénégal tumurankoon nu lool waaye askan wi am taxawaay goo xam ne daanaka dafa foqarti